di leen jot li wooteb sëñ bi mu ngi woo mbooleem ñi nga xam service yi nga xam ñoo ne ci région de Diourbel ak département Mbacké yëpp bis bi ko ci yàlla man loo nga ñëw ànd ak moom ñu dundal ko bu ko defee lañ fay jëlee ñu mën koo bokk ndax wax nañu nga si Abdou Khadir imaam daana wax ne barabu sëñ Mbacké bu suba lu fa waaye ñaan te nanguwul jàppal ne ci yow la kon barabu ñaan la boo xam ne nii yaakaar nañu lool lu fa waaye ñaan te mu ànd ak positif ko nangu kon sëñ bi laan woo ci bis bi di leen séentu ñu ñëw bokk kon kàddu yi cant ak ngërëm la ci turu délégation bi nga xam ne nii moom la ñu àndal. ngay tënk daal ci jataay bi sëñ bi moo ñu fi yabaloon ci waajtaayu màggalu Guédé ñu teewal ko ci kanam gouverneur ak mboolem chef service yi nga xam ne ñoo ne ci ngir càkkutéef yi nga am nañ ko ngir bis bi mën a jag war a mel ni mu war a mel bi ñu fi ñëwee fekk nañ fi maanaam dal fekk nañ fi tam ak jàppandal fekk nañ fi tam ak disponibilité boo xam ne gis nañ ko ci service yi nga xam ñoo fi nekk ak seen yéene ci taxawu ci bis bi ba mel ni war a mel ñëw nañ ci wàllum courant bi dégg na liñ ci wax ñoom it wax nañu daañu ci taxaw bu soob yàlla lépp lu ñu war a def ba coupure courant du fi am ci jamono yi màggal bi waaye tam làmp yi nga xamoon nañu ko soppi ànd commune Touba wax nañu daañu ci taxaw nañu ci war a taxaw bu ñëwee ci wàllum wér-gi-yaram itam ñu yore wàllu wér wax nañu daañu indi benn poste avancé incha allah ànd ak ambulance ak bi mu a àndal ak eh, médicaments yi nga xam ne ni moom la ñu soxla moom it jël nañ ci engagement bi ñu ñëwee ci wàllum yoon itam ba tey ñoom itam jël nañ ci engagement waa Azurut xëy na gouverneur dana jël engagement ci lañ fa war a jubbantiwaat ci yoon yi ñu jubbanti ko moom itam ñëw nañ ci. bu ñëwee ci wàllum service d'hygiène tam ñoom tam jël nañ engagement ci ne lépp luy wàllum pompe danañ ko fa taxawee commune waa tam jël na engagement ne lépp luy wàllu carburant dañ war ko cee def dañ leen ko jox ba mat sëkk ngir ñu mën a taxawee loolu. bu ñëwee ci wàllum assainissement bi tam wax nañ ne bëgg nañ vidange fosse septique yi nga xam ne ni moo am ci dëkk ba ñu ne ñoom it commune bi jël na engagement ne dana ci joxe juróom benn fukki kër xëy na ñun ñaar téeméeri rotation lañu doon demandé ñu ne dañ joxe juróom benn fukki kër xëy na tur yi rek mooy wuute waaye bu ñëwee dañ xam ne ñu koy organisé ba nga xam ne nii dana mën a sotti incha allah boo ko defee ci wàllum euh, tonni mbalit mi tam euh, ñoom it waa SONAGED jël nañu engagement ci ne danañ indi camion yu ma sëkk yoo xam ne ni lépp lu fay mbalit ñu mën koo ramasser del yóbbu ko ci dépôt yi incha allah loolu tam jëlee nañ ko fi bu ñëwee ci wàllu ndox mi tam OFOR ak Sen'Eau ñoom tam jël nañ engagement ci ne camion citerne incha allah lu ma juróomi dana mën a jàppandi yeneen taxawaay ci am itam bu soobee yàlla mu jokk ak ñoom danañ ko matal bi ñu ñëwee ci wàllum service élevage tam ñoom it jël nañ engagement ci ne lépp luy wàllu maanaam xéewal goo xam dañ ko fa jëfandikoo mu jëm ci wàllu lu ñuy lewetal danañ ko saytu ba lañ fay lewetal dana jaar yoon bu noppee nu gis na ko mën a jëfandikoo te benn jàngoro bu ca topp waa Eaux et Forêts itam ci wàllu matt mi déglu nañu ñoom tam wax nañu jekk nañ ngir jàpp lañ ci lépp lu ñuy soxla ci matt ñu mën ñu koo jàppante bañ ko am ci charte ñu def demande def ko demande collective boo xam ne nii dañ leen koy jébbal ci waxtu bi ñu ko war a jébbale service commerce itam ci prix yi ni ñu ko santaane te ñu war koo jaayee noonu wax nañu taxawaay bu ñu fa séenee taxaw ak produit yi nga xam ne tam day day jàpp day yàq ba noppi ñu bëgg koo préféré du ko jaay ci bis yi mel noonu ñoom it wax nañu daan ci taxaw ba loolu lépp ñu matale ko wàllum sécurité tam ñëw nañ ci gendarmerie police ak sapeur pompier wax nañu ne taxawaay bi leen ci am bi leen ci war ñëpp incha allah daañu ko ci taxaw ba benn jafe-jafe du ci am xëy na nag ñu war caa jàppalanteeg ñoom ci def communication ci wax ak nit ñi. ña fay ñëw tey jóge feneen di ñëw ak ñeneen ci biir dëkk ba tam ñu wax ak ñoom ci waa ku nekk mën a sàmm sa kaaraange bopp bu ko defee ñoom ñu mën leen a jàppale loolu daal mooy defe naa ne tënku jataay bi ci teewaay gouverneur ak teewaay délégation bi nga xam ne nii moom la suñu yebal te suñu Abdourahmane ñu ngi jiite ko kon daal ñoo ngi sant di gërëm. seen service yi engagé woon ci dugal leen ci secteur yu mën a doon. jàpp leen rek lépp luy taxawaay ci bés boobu incha allah seen service engagé woon pour dugal leen waaye di rafetlu tamit taxawaayu commune bu Touba bu mosquée bi nga xam ne engagé wu na parce que ci wàllu organisation bi am na ci pàcc bu rëy boo xam ne dina ko ci def muy ci wàllu cadre de vie muy nettoiement muy ci wàllu hygiène également ak ci wàllu assainissement ak lépp loo xam ne ci énergie war na ci am compétence yaakaar naa engagé wu na pour ko su ko defee boole doole état central ak état départemental